Boy Niang ginnaaw bi la nuyoo di la masaw mhm. di la jàllinu ko xam na ne yaa ngi plein combat mhm. mais bàyyi nga lépp pour ñëw jaale say sa ñu bëggoon xam tey sa diggante Papa mhm. waaw Fadel maa ngi bu baax di nuyu seen internet yëpp nga di di di jaalewaat Sénégal mi ñu bokk di jaale suñu frère muy Wally Ballago Seck di jaare famille Thione Seck yëpp suñu papa comme ni ko waxee rek ñu ñëpp ñoo bokk senegal te Sénégal benn dëkk la kenn mënu koo xal ñaar ku amee bànneex ñëpp dañ koy bokk ak yow donc ba amee naqar war nañ mën a ñëw bokk ak yow ba pare Wally nekk suñu frère waaw ñu am ay relation Papa Thione tamit yàlla dogal na am nañ occasion gis ko waxtaan ak moom mu ñaanal ñu ñaax ñu donc bu jógee foofu ñu ñëw wan famille bi wan Sénégalais yi wan Wally ñu ngi bokk moom tiis bi di ko masawu di ñaan suñu borom xara ko àjjana yu kawe kawe kawe di bokk ak Sénégal tiis bi parce que ñëpp ay frère lañu et puis gis nañu Sénégal nuñ ko taxawoo te loolu am na solo bu baax wane na ni ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay ñu ngi koy jaal Sénégal di ko jaar ñëpp di ñaan suñu borom xale ko àjjana yi kaw incha allah. ñu gis ci sa papa la mais yan a marqué ci papa Thione yoo xam waaw li gën a am solo mooy ne le fait que nitu dëgg la gis ni nitu dëgg la te nitu dëgg dafa am solo nga am papa bu mel noonu chance la le fait lu mu metti metti lu mu saf saf mu wax la dëgg loolu dafa am solo bu baax te loolu gis nañ ko ci moom et dañ koy ñaanal rek suñu borom xale ko àjjana mais suñu présidence dafa nekk ne di wan ni famille Thione Seck na ñu ngi bokk ñoom tiis bi di wan ni Wally Seck na ñu ngi bokk moom tiis bi ak naqar bi di ko masawut xam ni ñàkk papa dafa metti bu baax surtout ma papa boo xamante ni métier bu mu doon def moom nga ñëw di def loolu da am cofeel ci moom moom tamit dafay am cofeel ci yow donc ñu ngi masawu ñëpp waaw waaw di sant yàlla bu baax di ñaan suñu borom nag feebar bi mu jaaw jëlee ko fi ba ku nekk nekk ci li nga nekk incha allah mais le fait que suñu bu mu fi jógee gis nga ñëpp ñëw nañ bokk ñëpp tis bi ñu ngi seen kër ñu ngi seen page Facebook ñu seen statut bi ñu seen page Twitter xam nga wane nañ ñu ñëpp ñoo bokk lépp donc loolu message rek pour wane ni Sénégal mën na di am ay yëngu du ci ñàkk nag mais parfois après ñëpp nag dañuy toog sur table ñu waxtaan ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay incha merci beaucoup.